wa ala alihi wa ashaabihi xurril mayaamiin wa man tabia wa sanna bi sunnatihi ila yawmi ddiin ayyuha al ixwa wal axawaat udnaa ilaykum min jadiid wa nuxayyikum taxiyata al islaam taxiyata al aruba salaamun min allahi alaykum wa rahma wa baraka kaana haada al imaam as-saydi Abu Bakar Si zaiman li taifa attijaniya bal laqad kaana qabla kulli shay zaiman lil islaam wa huwa ibnu thani li seydi alxaaji malik radiallahu anhu wala xafaa innahu warasa waalidahu wa jaddahu bililmi walmaarifa walinaaba ila allahi anaala risala daawa alislaamiya wa huwa rajulun lahu makaana alaaliya wa faacilun fi binaa alwatan wa xarakatuhu xarakaatul karaama kaana ajabu kibaar suyuuqi zamaanihi bi zuhdi wa taqwa wulida acheikh Aboubacar Sy 1885 bi madinata Ndar عاصمة العلم والثقافة والمركز الإداري وينحدر من سلالة التكرور وتعليمه وتكوينه أهدأ به والده سيد الحاج مالك سي wa huwa sabiyun summa qaama fi zillihi zamanan tawilan wa karasa xayaatuhu bil ilmi wa saqaafati l islaam assalaamu aleykum wa rahmatullah mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen nuyu nuyoo lislaam muy salaamun min allahi aleykum wa rahma wa baraka tey suñu waxtaan ñu ngi waxtaan ci as-Seyd Aboubacar Sy radiyallahu anhu ak anniversaire am bii nga xamante ni mooy vingt cinq mars qabla kulli ñu ngi nuyu yéen mbokk jàmm ji FM ci ñëw bi nga xamante ni moom ngeen ñëw set si ñu ngi ñaanal mbooleem ko ci nekk yàlla defal la tawfiix defal la yokk ndax jàmm yàlla da koo bëgg ba tuddee ko benn tur muy salaam jullit nuyób jullit jàmm la julli boo jullee ba pare jàmm ngay ñaanal sa bopp ñaanal ko mboolem yi nga xam ne ñoo la wër aljana gi nga xamante ni moom la ñu gën a bëgg sax yàlla da ko tuddee daaru salaam këru jàmm kon jàmm ji FM ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax euh, ñëw bi ngeen ñëw ak euh, loxo bi ngeen dugal ci jàmm info euh, ñëw bi ngeen ñëw ak loxo bi ngeen dugal ci liy yëkkati ak liy tasaare diine yàlla na leen ci yàlla fay kon ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla tawfiq tey mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ñu ngi dëgmal xew-xew bu mag boo xamante ni min akbaril ayaat fi euh, fil islaam xew-xew bu mag muy ziar général ziar général kan moo ko taxawal daayiratul kiraam la ci jamono ki nga xamante ni mooy Seydi Aboubacar si radiyallahu anhu mi nga xamante ni moo donn baayam waaye moo donn ay maama kan mooy alxalifa Aboubacar si kilifa tarixa la waaye lu njëkk muy nekk kilifa tarixa dafa nekk kilifa diine nekk doomu ñaareel ci Seydil Hadji Malick amul nëbbu donn na baayam Seydil Hadji njàng ak jàngale donn ay maamam ci xam-xam ak xamale ak dellu ci yàlla ak inaabatu ilallah inaaba dafa nekk farun min at tawba soo xoolee tuub ci bàkkaar dellu ci yàlla dafa nekk banqaas bi nga xamante ni moo ko téye wa ilallahi turjaul umur wa anibu ila yàlla mi ngi wax ni dellu leen ci seen borom ndax nit ki su fekkente ni dellu na si boromam mooy ki nga xamante ni dundam doxinam waxam lépp da koy teg ci diine da koy teg ci lu yàlla bëgg moo tax mu wax ni musuma tooñ sama moroom waaye musuma euh, tooñ sama borom moom Seydi Aboubacar si radiallahu anhu mu taxawal nag ci woote ci lislaam am nag daraja bu mag ci réew mi bokk ci ñi nga xamante ni kilifa yi nga xamante ni ñoo ndar képp réew mi ci dëddu ak ragal yàlla mi ngi judd mille huit cent cinquante mille huit cent quatre-vingt-cinq ci ndar ndar bi nga xamante ni palaasu diine la palaasu xam-xam la waaye mi ngi jugee ci euh, famille boo xamante ni famille bu sell bu tedd bu tukkulóor njàngam moom Seydi Aboubacar Sy baayam Seydi El Hadji moo ko jàng moo ko jàngal téye ko mu sax ci moom lu yàgg topp mu jox ko benn rakkam bu ñuy wax Mor Khoudia Sy waaye Seydi El Hadji moo sos Ihya Mawlidi Nabi ak mbokkam mu baax ma maam Rawaan Ngom ñu jàng alquran xaaju kaw xaaju suuf ba fajar moom Seydi euh, Aboubacar radiallahu anhu xilaafa gi ci gannaaw mbokkam ba Sidi Ahmed si mi nga xamante ni tuufiya fi Grèce moom ci Grèce la génne àdduna moom ci Grèce boobu mu génnee àdduna la ko ci Grèce boobu mu génnee àdduna ca xarbaan al alamiya ci guerre mondiale moom alxalifa Aboubacar si xalifa bu njëkk la mu ngi jël xilaafa gi 1922 ba 1957 topp ki nga xamante ni moo ko topp bu mu fa jógee alxaaji Mansour bal xaw mi moom jël na ko xilaafa gi mais ñeenti fan la ci def mu fekk magam ju baax ja topp bi mu génnee àdduna ci moom 29 mars 1957 euh, ki nga xamante ni moo leen wuutu mooy alxaaji Abdul Aziz Dabbaax mu nga xam ne def na 40 ans ci xilaafa gi ba 1997 topp doomam ju baax ja Seydi Mouhamadul Mansour borom daala ji ba bisub samedi ci 8 décembre 2012 bushraakumul Mansour qad wulitum sirral xilaafati mawlida zamaani ba nga koy jox xilaafa ga ni ko jël ko ni ko Cheikhuna Tidiane yi moo la jox xilaafa gi Cheikh Mouhamadul Mansour yor ba mu génn àdduna jox xilaafa gi Cheikh Ahmed Tidiane al Maktoum ba mu génn àdduna. jox ko rakkam ju baax ka Abdul Aziz Ad-Dabbaax ba mu génn àdduna jox ko tey Seydi Aboubacar Sy Al Mansour noonu la silsila xilaafa gi demee noonu la euh, ziar bi nag dafay boole mbooleem tarixa yi waaye tamit dafay boole mbooleem euh, ëttu diine yi waaye dafay euh, boole mbooleem taalibe yi ziyaara bi ni koy mën a waxee dafay mel ni course boo xam da nga ko nas jàppoo gi ni jàppoo ak xamante ak euh, euh, gisante ak euh, waxante ak dénga dénkaane looloo tax mu sos li nga xamante ni mooy ziar général soo xoolee ci taarix yàlla bi mu wax maam Ibrahima ni ko demal demal ca makka wa uzina linnaasa bil xajj demal yëkkati fa xawaayit ba moom maam ibrahima jël haajara jóge Sham indi ko bi bàkka muy bàkka muy place boo xamante ni place bi amul benn ndox amul benn gàncax waaye ndigalu suñu boroom ak wóolu sunu boroom yàlla ni ko xawaa it minal bayt gis nga bi muy jógee di indi jaba jabaram ak doomam xam na ni fii mooy xawaa it minal bayt kaaba ga fii la nekk waaye amul woon ndigal pour commencer dem rek euh, jubal ca kaaba bi waaye am na benn ngëm ngëm ngëm boo xamante ni moom la ngëm moom tax moo tax tamit Seydi Hadji Malick bi muy jógee ak fu mu jaar ak fu mu jaar ba ñëw Tiwaawan ñu ni Tiwaawan fii hal yumnu lil mutayaamini Tiwaawan de xéewal la barke la ndax ba Cheikh Omar rombee ban ko laajee moom dafa wax ni Siwaawoon fii de dëkk la boo xamante ni dañu ko dégg mu dëkk yoo xamante ni bokk na ci dëkk yi nga xamante ni dëkk lislaam la moo tax ñiy préparé li nga xamante ni moom mooy ziar général ñu ngi koy ndokkeel euh, alxalifatul am li taifa at tijaniya muy Cheikh Seydi Aboubacar si Almansour adaamallaahu lahu siha wal aafiya waaye tamit ñu koy bokk tamit di ndokkeel mbooleem turuq suufiya yi yi nga xamante ne ñoo nekk ci réew mi parce que l'islam bu ñu yëkkatee dara ci l'islam rek ñëpp a ko bokk moo tax dimanche bii jullit yépp ñu ngi daje ci waawan ñu toog ci kanamu euh, xalifa bi dégg li nga xamante ni mooy jàngale gi nga xamante ni moom la baayam ak ay maamam nekk woon mu nekk ko ak sunuy baay ak sunuy maam ba léegi muy taalimu diin xam-xamu diine ak orienté waat li nga xamante ne mooy taalibe yi ah diine islaam loolu la waltakun minkum ummatun yad'una ila al xayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna anil munkar yàlla ne am na ay ñoo xam maa leen di tànn ci yéen ñoo xam dañuy taxaw di digle lu baax di tere lu bon ñooñu euh, Seydil Hadji Malick bokk na ci loolu Euh, ki nga xamante ni mooy alxalifa Aboubacar si euh, moom tamit bokk na ci mu nekk loo xamante ni tamit min mashaa'iri diin al islaamiya yëg-yëgu diine la ndax doomu aadama tey mënul am lu ëpp dellu ci yàlla wa min samaraati l inaaba arrujuu ila allahi undur ila samaai hadihi nnujum taallam anna lil kawni lahu ila ilahun mudabbir bokk na ci dellu ci yàlla nga xool li la wër xoolal biddiw yi nekk ci ci kaw asamaan di nga xam ni am na buur boo xamante ni moo téye adduna bi yàlla moomu nag bindulu ci caaxaan nee binduma doomu aadama ci caaxaan kon li nga xamante ni moo tax yàlla wàcce na ci mooy jaamu yàlla ñépp dañoo war a delluwaat ci yàlla wa ila allahi umur waaye wa maa xalaqtul insa wal jinna illa liya'budun yàlla nee na binduma doomu aadama binduma jinne bëgguma ci ñoom wërsëg bëgguma ñu jàppale ma dara lu dul lan ñu nangul ma rek al al euh, ñi maa leen bind ñu nangul ma ñu li nga xamante ni man maay seen kilifa ñu jaamu ma jaamu bi yàlla jaamu bi rek la yàlla soxla kon nag euh, euh, waa jàmm ji FM lii waa jàmm ji info lii moo nekk li nga xamante ni tey euh, mooy waxtaan wi nga xamante ni moom la ñuy waxtaan ci li nga xam ni moom nu dëgmal muy euh, ziar général bi nga xamante ni xameen yàlla da wax ni ci lisaanu euh, muhammad sallallahu alayhi wa sallam man sanna sunatan xasana fa lahu ajruha wa ajru man amila biha ku sos sos lu baax yàlla dala ciy defal ay xéewal ak képp koo xamante ni sóobu na ci kon ñëw bi nga xamante ni moom ngeen ñëw pour tasaare li nga xamante ni mooy waxtaan ak tasaare yi nga xamante ni moom mooy wàllu diine ak li nga xamante ni mooy seeti boroom xam-xam yi yàlla na leen ci yàlla fay yàlla dimbali leen ci yëkkati leen ci defal leen ci seen misaanul xasanaat ñi ngi nuyu waa réew mi yépp ñi ngi ziyaare waa réew mi yépp di ko di ci jiital kilifa réew mi di jiital tamit kilifa diine yi ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal di ñaan yàlla yàlla dolli ñu jàmm yàlla defal ñu jàmm dolli ñu jàmm ci suñu réew ndax xubbul watan min al iman bëgg sa réew bokk na ci liy dëgëral ngëm yàlla ndax sa réew bul xool lu mu la defal xoolal yow li nga war a defal sa réew ndax fi nga juddoo fi nga màggee di noyyi ci jawoom nga màgg fa la nga fa am am fa xamee leen fay am am fa kon